mais nag dafa am loo xamante ni dama euh, bon balaa moo jot wala balaa ñu see egg ma teel koo wax parce que xam naa seen jikko yéen sénégalais yi Sadio Mané bu amaatee match biir di ñëw bu ci dóoree bal daanu wala mu fakastalu daanu wala ñu dóor ki éppal mu daanu wala mu doon marqué daanu wala mu dóor penalti yi duggul sax bu kenn soxna si la soxna si la maanaam ŋaal-ŋaalee jooju noonu. laa ne balaa moo am il faut ma teel na alerte alerter parce que lii da ciy baax Sadio nag euh, il faut nga teel a jug ci say mbir parce que lii may wax nii yow laa ko waxal il faut nga xëy confirmer ko Sadio daan na bal daan dóor bal di daanu Sadio daan na marqué di daanu waaw tey di ngeen di bàyyi nag ba mu takk soxna ba pare bu marqué daanu ñu ne soxna see tax. ŋal-ŋalee jooju ŋal-ŋalee jooju noonu laa ne balaa mu cee egg ma teel koo ŋal-ŋalee ci noppi doomu aadama yi. waaw ayca